jëmale ko ci mbooloo mu tedd bi ak ci waxtu wi waxtu wi ci biir kër Cheikhul Khadim gi di dalal mbooleem ñi nga xam ni teew nañ ci jataay jataay ci diggante suba suba ba ci waxtu wi ba ci waxtu wi di leen jox seen wàccuwaay seen wàccuwaay di ñaan yàlla ñaan yàlla li nu fi def lu jiitu lu jiitu ci ay lim ci ay lim ba egsi ci bis bi mu àndandoog loolee yàlla na sëriñ bi nangu lépp sëriñ bi nangu lépp su ko nangoo yàlla na ko ful waaye def ko xàddiyee si Ahmadul Muntaxa Muntaxa sunu borom dolli aw fanam aw fanam te wérul ko wérul dolli ko sutura ak jàmm bu baax jàmm bu baax di ko ñaanal mbooleem mbooleem njabootam gi ci ginnaaw bi sant yàlla nag sant yàlla nag sant yàlla ndax kenn ku ne xam na ne bis bi bis bi ci ndigalal Serigne Saliou la amee woon lam ñu ca waxoon duñ ci dellu si dellu waaye kenn ku ne xam na ne kàddoom gëm ci dugaloon ci dugaloon barkeel na barkeel na ba tey ren ji ren ji di dix-neuvième édition daje fi daje fas yéene koo dundal ñu am nag ay kilifa yu baax yu ñëpp xam ci yoon wi ku leen xam xam seenu taalibi xam seenu murite xam seen bëgg lu baax xam seen yaakaar seen tur fii ci Pikine fii ci Pikine buñ ci jiitalee sëriñ Lay Njaay mii nga xam ni tey barab bii nu toog bii nu toog moom la ko sëriñ bi dénk teg ko ci loxoom ko ci loxoom ngir mu saytu ko ci mbooleem loo xam ne war na ci barab bi ci barab bi te war koo taxawee taxawee te bu ko taxee muy ko taxawee muy ndamal lislaam bay laay bay laay ngi lay ziare bu baax yaag yaag ñii nga àndal ñii nga àndal te bokk ak ñoom liggéey bi ko xool ni ñu toog ci barab bi xam ni am na lu mu fi nësër am na lu mu ci yéene am na lu mu ci bëgg yàlla na ko sëriñ mot leen ci barkeb Seex Xaadim bi ziyaare it bi ziyaare it sëriñ Moustapha Badiane Moustapha Badiane Murid Saadix Murid Saadix Murid Saadix moom moom moom dafa bokk ci ñun bokk ci ñun bokk ku ko xam-xam ni doxinam yëpp doxinam yëpp xasida yi rek xasida yi rek ak liggéeyal Cheikhul Khadim liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Modou Moustapha Modou Moustapha ñu ngi lay ziar bu baax boobu nga bokkoon ak sa waaju baax ja Cheikh Abdoulaye Khadim te lépp di sëriñ bi lépp di sëriñ bi yàlla ko sëñ bi defal tawfeex xam ne tawfeex xam ne di ziar nag ñi nga nga xam ne ñoo jóge ci suñu jëw nga xam ne nga xam ne nga xam ne délégation bi Mouhamadul Moustapha Kane mii Moustapha mii dana ci ñëw dana ci ñëw dana ci ñëw waaye sëriñ Yatma Gueye mii Yatma Gueye mii di sunu mag di sunu xalifa di sunu kenn ku ne xam Baye Diakha Gueye Touba Sandaga Touba Sandaga ni mu meloon ni mu meloon ci liggéeyam Cheikhul Khadim doon jëruñu sëñ Touba ba am gërëmal sëñ Touba dem àjjana waaye kenn ku ne xam woon na jàmbar jàmbaar ji sunu jàmbaar ji Alaaji Góora Seck Alaaji Góora Seck Alaaji Góora Seck mi nga xam ni mi nga xam ni mi nga xam ni kër gi bi mu fiy jógee bi mu fiy jógee yaakaar naa lim fi desaroon lim fi desaroon ak lim fi def ak lim fi def umpul kenn umpul kenn ci taxawaay yu rafet taxawaay yu rafet ci jëf yu rafet ci jëf yu rafet ci pëstéef ci pëstéef yàlla na ko yàlla doon yërëm allah mu mel ni mu mel ni mu mel ni ak njabootam ji toog ji toog ji toog waaye sëñ Mortale mii Mortale mii buñ ko tuddee boole ko ci njabootam ak seen cheikh ak seen cheikh ànd ak seen cheikh Soda seen cheikh Soda waaye ñëwaale nag wàllu ruus yëpp wàllu ruus yëpp doon jëwriñ ji doon jëwriñ ji di jàmbaar lool ci yoon jàmbaar lool ci yoon sëñ Mortale jërëjëf yàlla yàlla taxaw yàlla yàlla àggali yéen yàlla àggali yéen ci barke Cheikhul Khadim barke Cheikhul Khadim mu mel ni nag mu mel ni nag mu mel ni nag mu mel ni nag seriñ Makki yu fay Makki yu fay mi nga xam ne sëriñ bi daa wax sëriñ bi daa wax kër sëñ Tuubaa yi day Tuubaa yi day fenn fu ne am na ko fa ne am na ko fa ne am na ko fa ne nekkal nu fa nekk fa jëwru sëriñ Tuubaa waaye nag waaye nag moom laa jiital ci mbooleem ci mbooleem jëwru sëriñ Tuubaa yooyu ci yooyu ci li nga xamante ni mooy réseau de Cafère réseau de mu doon seen jëwri mu doon seen mate ko sëkk nag mate ko sëkk nag ci zaahir ak ci baatin ak ci baatin waaye di jàmbaari Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim di liggéeykatu sëñ Touba sëñ Touba di koo xamante ni kenn ku ne xam na taxawaayam ci yoon wi ak bëggam ak bëggam noo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla defal ko tawfeex tawfeex kon mu mel ni kon mu mel ni kon mu mel ni ci turu Serigne Yirim Aw Serigne Yirim mi nga xam ne mooy jël mooy Kanzul Muqtadin Kanzul Muqtadin ak Serigne Kosso Sey mi jiite commission culturelle bi culturelle bi ak Baye Assane Yad Baye Assane Yad ak mbooleem ñi ñu bokk jataay bi ak kuréel ak ak ak Serigne Abdou Karim Ndiaye mi toog nga xam ni wàllu liggéeyu lim yi moo ko yor moo ko ak ak si algor seen mii ak mbooleem yi ñu ko seqal rek seen kàddu laa doon waxe ñoom ñëpp waxe ñoom ñëpp kon mu mel ni kon mu mel ni ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla bu baax di jaare jëlu Cheikh Moustapha moom it di ko dalal di ko dalal di ñaan yàlla fanam gudd ndax fanam gudd ndax is bu taraxya Daaru Xuddoos dañoo liggéey liggéey bu rëy ci bis bi ci bis bi yaakaar naa ne lu jiitu lu jiitu ñaari alxames wala jët ca gannaaw def nañu fii jataay boo xam ni daanaka bokk na ci li yaatal bis bi ren ba mu egg foo xam ne kenn ku ne yaakaar naa ni jot nga ci kon ñu ngi sant yàlla suñ bay laay ñu ngi lay dalalaat waaye nag di ziar nag jëw nu kër gi nga xam ne mooy sëñ Tuubaa ci kër gi muy sëriñ Cheikh Mbacke Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul di suñu jëwrin di suñu sëriñ ne ci kër gi wayu juróom tegoon ko fi Cheikh Mouhamadul Mourtala daan wàcc fii kenn ku ne xam ne su ma saa dem masaa dem ci àll bi buy dem àll bi buy dem buy ñëw dana wàcc fii buy dem dana waaje buy dem dana waaje gannaawam nag gannaawam sa dex mii ne taxawu kër gi waaye taxawu lislaam bi waaye taxawu taalibe yi ñu koy ñaanal mbakke suñu borom mbakke suñu borom eggali yéeneem bu di bañ a guddal rek a guddal rek di wàcce suñu kaddu wàcce suñu kaddu di ko jox Cheikh Mamadou Moustapha Kane Moustapha mu présenté délégation bi nga xam ne moo jóge ci jëwri su ko defee buñ ci jógee nag buñ ci jógee nag Serigne Baye Lay Ndiaye mii jóge kër gi incha allah rabbi rabbi danañ ko gën a yaatal a su ko defee mu am ay kàddu yu mu jotal su ko defee nag da des Cheikh Mouhamadul Moustapha Badiane mii muy li ñu war a ci bis bi xasida ak njariñal xasida yi incha allah rabbi moom la ñu fas yéene jox mu def ko di jaar Cheikh Mouhamadul Amar bokk na ci kilifa jataay bi kenn ku ne gis na Sarsara moom liggéey bi mu ak jataay bi mu ci am Cheikh moom it tubaarkàlla macha allah di ko ñaanal yàlla ko am na xew-xew bu xew ci man ma waroon la waaye tabje moo tax sama woy juru góor dafa liggéey waaye bi muy am dama fekk ci tabje ak waxtu yu ñu ma woo ma woo di kon rek dem Touba ndax moom ma nga woon Touba daaru meneen ca pénc ma moo ko sëriñ bi it sëriñ bi dañoo yàgg lool sëriñ bi it moo ko defal lépp ba pare jox ma ci ndigal ne ma na yem ca bis booba moo tax aw woon sañ-sañu di di yëgle mbaa lu topp ndigalam li ma digal rek waaye maa ngi koy jéggalu bu baax a baax baax a baax ngeen ñaan la ko yàlla sëñ Babacar Diop la tuddoon sama borom dolli ko yërmande ak njéggal ci barke Xaadim Rasul Cheikh Moustapha ñooy wàcc suñu kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fii baax na fii baax jërëjëf sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar Jóob ci kàddu yi rafet yu am solo yooyu am solo yooyu ñu ngi lay delloo nuyoo bi nuyoo bi xam naa ni du ñu guddal ndax kàddu yi kàddu yi sunu waajur wii ñu àndal muy Baye Samba Diaw dina ko jotal jotal dañuy présenté rek délégation bi nga xam ne moo jóge ci jëwriñ Alaaji Mbàkkiyu Alaaji Mbàkkiyu muy muy Baye Samba Diaw mii nga xam ni mii nga xam ni moom lañu ñu àndal ci takkusaan bi ñu koy julli lañu ñu agsi fii la ñu agsi fii muy coordinateur Masaalikul Jinaan Jinaan waaye tamit waaye tamit waaye tamit di kenn ci jëwriñ Alaaji Mbàkke yu fay Mbàkke yu fay bokk ci ñi nga xam ni ñoo nekk ci wetam di ko jàppale ci liggéey bii nga xam ni moom lay liggéeyal Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa mu mate ko sëkk nag mate ko sëkk nag mate ko ko sëkk nag di nuyu bu baax nuyu bu baax nuyu bu baax sëriñ Seex Balla Samb mi nga xam ni mi nga xam ni mooy directeur télévision Touba TV Touba TV di téléb sëñ Touba boobu nga xam ne boobu nga xam ne yaakaar naa ni ba mu ubbee ba léegi gis ngeen gis ngeen liggéeyub sëriñ bi rek yëpp sëriñ moo ci jàll nga xam ni nga xam lépp lu jëm ci programme liggéeyub sëñ Touba liggéeyub sëñ Touba mi ngi ci jàlle ni mu waree ni mu waree te loolu rek mooy li am solo moom it muy kenn muy kenn ci jëwriñ alaaji mbàkk yu ndax sañ sa deex mii ngay mii ngay présenté muy kilifa kër gi kër gi waajuram cheikh mouhamadou muxtada muxtada moom cheikh bàll sàmb mii la daan fekki la daan fekki états-unis d'amérique états-unis d'amérique mu jiite fa mboolem taalibi sëñ tuubaa ya fa nekk comme nii ko jëwriñ alaaji mbàkk yu def sëñ Mourtala daan ko fa fekk at yu bare bare bare bare ci liggéeyam bu rafet liggéeyam bu rafet liggéeyam bu rafet ak laabiram ak mbaaxam ak taxawu taalibe yooyu taalibe yooyu ca la ko sëñ Mbàkke yu sëñ Mbàkke yu waxee mu jóge foofu ñëw ànd ak moom liggéeyub sëñ Tuubaa bi ba noppi jël télévision bi dénk ko muy suñu waajur di ku baax di ku baax mi ngi ci délégation bi délégation bi waaye sëriñ Aliou Wagne sëriñ Aliou Wagne mi it mi it lii ma wax ci Seex Balla wax ko ci Serigne Samba jaw Samba Diaw moo valable ci moom ndax ci moom day koo xam ni day koo xam ni la sëñ Modou Moustapha Al Karim waxoon ni waxoon ni foo gis lu baax ci àddina ku baax a ko fa def waaye bu fa saxee ñuy defara fa ne loolu yaakaar naa sëñ Maxtaar leçon la boo xam ne gis ko fàtte moom ci defarkat yi la bokk bokk muy borom xel mu rafet xel mu rafet di ko dëggu di ko baax koo xam ni koo xam ni noo nii la ànd ak sëñ Mbàkke yu lépp lu muy def dana bokk ci ñi mu koy waxtaanal te loolu di lu am solo waaye sëñ Ablaye Samb ci délégation bi la bokk moom it moom it mook sëñ Cheikh Balla Samb mii ñu bokk lépp mu nekk États-Unis d'Amérique mu nekkal ko fa nekkal ko fa nekkal ko fa nekk ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu sëñ Tuubaa bi nga xam ne saa bu ñëwee saa bu ñëwee fépp fu jëm lépp lu ñuy def nii lañ koy ànde nii lañ koy ànde moom it muy jëmm ju baax di borom xam-xam di borom xel mu rafet xel mu rafet ci délégation bi la bokk bi la bokk ak man mii yor kàddu gi di seen doom di seen doom di nuyu bu baax nuyu bu baax Baye Laay Baye Laay Njaay mii nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi nekkal sëriñ bi ndax bëgguma cee sori dama koy nuyu rek ndax la ca war a lépp la ca war a lépp Baye Samba dina ko wax bu ñëwee wax bu ñëwee ñu siyaare sëñ yaat ma sëñ yaat ma géy mu baax mi mu suñu wëllëre di suñu xarit di suñu xarit ak sëñ Moustapha Badiane Badiane sindi di ñi nga xam ni ñi nga xam ni wax naa ko léegi ni ko rusuma laa fekk fenn ci àddina taalibe yëpp it nag placement boobu lan am ci ndax bi ñu koy xam ñun dañoo gën a nekk ndaw gën a nekk ndaw mu jàpp ñu mu jàpp jàppale ñu di ñu xelal ñu xelal ci xasida yi ak ci yoon yi bañ ak si fii ak si tey fii ñu ak ko yàlla fay ko yàlla fay yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko te wéral ko kàddu yi ma ciy teg nag lu gàtt lay doon ma jox Baye Samba kàddu gi mooy kàddu gi mooy lii nga xam ni lii nga xam ni moom ngeen di def tama jàkkarloog jàkkarloog affiche bii nga xam ni ñëpp dañ cee nekk dañ cee nekk dañ cee nekk maa ngi koy wax léegi sëñ léegi sëñ Moustapha Badiane mii ni ko mii ni ko lépp loo xam ne loo xam ne loo xam ne ñii firi alquran firi nañ ko firi nañ ko lu mu jub jub lu mu tegu tegu ci aw yoon lu mu baax baax lu baax baax bu ko sëriñ tubaa firi rek Touba firi rek mu gën a baax mu gën a baax gën a mat gën a dëggu gën a dëggu ñu gën koo mën a dégg gën koo mën a dégg ndax sëñ tubaa da daan fekk loo xam ne dafa bari lool jalu loolu jalu nga nar caa sonn lool ngir xam ko mu ñëw daal la koy tënkal ci lu gàtt daal la koy nga comprendre ko mën koo jëfee ko mën koo jëfee ma di ko wax ni ko wax ni ko am na benn am na benn aaya boo xam ni boo xam ni maa indakum yan fadd wa maa indallaahi baaxi baaxi suñ tubaa dafa waxoon maam Cerno ni nan mun koy firee koy firee maam Cerno ni ko mbàkke ne ko mënoon a xam mu ni ko mu ni ko waxal ma dégg waxal ma dégg moom nag lépp lu masalaaj kenn du nangoo xam dara fi moom waaye bu la joxee ndigalul wax nag da nga wax lam la wax mu ne ko ah, Mbàkke des na wax ne ni des na wax ne ni des li fi yéen dana jeex waaye li fi man suñu borom du jeex suñu borom du jeex ñu bari nees noonu lañ koy firee de noonu lañ koy firee de mu ne ko Cerno firi mi ëpp na loolu ni ko suñu borom kat suñu borom kat suñu borom kat bu sàkkee jaam ñi wërsëgal leen wërsëgal leen du wàcce boppam bay ba naan jàmm bi yow di nga jeexal man man man ma dese man ma dese dafa bëgg a xamal jàmm bi rek ni ko li nga xam ne moo nekk ci seen kopparfoor yi ak seen banque yi te ngeen denc ko te defalu leen ci yàlla dara loola day jeex te buy jeex daanaka ci neen lay jeex waaye la ngeen defal yàlla nag defal yàlla nag mu jiitu leen ci seen bàmmeel yi loolu kat mi ngi fi man te du jeex loolaay firim loolaay firim waaye du yàlla mooy am lu muy dese yéen ngeen di jeexal yéen ngeen di jeexal daal da cay teg nag ni leen nit kat alali jàmbur waru a gënal alalam gënal alalam daa ne ko luy alalu jàmbur mooy li nga xam ne da nga liggéey mu bari lool nga bàyyi ko fi am ñoo ko fi bàyyi ñoo ko moom ñoo ko moom luñ ca def ca sa ginnaaw def sa ginnaaw rek dafa mel ni da nga koo liggéey ba mu kii nga jox ba mu kii nga jox alali jàmbur la waaye li nga def ci sa teyug bakkan muy lu baax mu jiilu la ci sa bàmmeel nee na loolaay sa nee na loolaay sa kon yéen lii ngeen def def ko ñii nga xam ne ñu ci bari xam nañu bari xam nañu dundandoo ak ñoom muy xasida yi muy jëf ju baax muy jëf ju baax muy loo xamante ni dañoo sonn ci yoon yi ba agsi ci yoon ba agsi fii ñu agsi day fàtte woon nii ngeen def affiché leen lim leen léegi lim leen ci alxuraan ji ak xasida yi loolu la ñuy ànd la ñuy ànd kon kon ñu ngi leen di sant ci lool te di leen ñaanal leen ñaanal yàlla dimbali leen ba ngeen yàgg a taxawal lii te ñàkk koo ànd ak yéen sëñ Yërim Awit sëñ Yërim Awit euh, déggante nañ déggante nañ ci loo xamante ni yaakaar naa sëñ Maxtaar mi ak sëñ Koso sëñ euh, Koso li ñuy nekk bitim réew yëpp ñu ngi déggante ak moom ci li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la jiite kon kon ñu ngi daaneel foofu suñu kàddu rek suñu kàddu rek di wax ni di wax lépp loo xam ni jóge na nag ci jëwriñ Alaaji Mbàkke insha allahu rabbi allahu gërëm léegi salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk jullit salaamaaleykum mbokk taalibe yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu leen di nuyu leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di balu àq bu baax bu baax ñu ngi leen di balaax leen di balaax di siyaar ku tedd ki di ko ñaanal di ko ñaanal ñu sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg te wér yal na fi yàgg te wér ñu ngi siyaar ñëpp bàyyi laay ñëpp ñu ngi lay nuyu bu baax nuyu bu baax ñu ngi teg nuyoo bi nuyoo mbooloo mi ma àndal jóge ci àllaaji mbakk sa loxo yow mi toogal sëñ bi toogal sëñ bi sëñ Moustapha Badiane ñu ngi lay nuyu bu baax nuyu bu baax bu baax a baax sopp la lool la lool ndax ni nga soppi xasaayit yi xasaayit yi ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu mbooloo mi mbooloo kan yëpp yëpp yëpp di ci jiital jëwrin ji jëwrin ji di ko ñaaral moom tamit ñaaral moom tamit foofee mu nekk foofee mu nekk te sëñ Touba rek la fa nekk mu ñëw ci jàmm fekk mu ci jàmm ci jàmm kon nuyoo bi ma ngi ci loxo sëñ koso loxo sëñ koso mi nga xam ne moo mooy culturel bi di nuyu sëñ Abdou Karim mii mii nga xam ne nga xam ne yaakaar naa ne ci mbooloom international bi la bokk moom nag sa am xarit la ndax ñoo bokkoon nekk ca finance ca direction de la solde de la solde moom mu am pàcc bu mu fa yore maam pàcc bu mu fa yore bu mu fa yore waaye nag sëñ bi tënk nu sëñ bi tënk nu ñu nekk fa ñu nekk fa ba def fa daayira def fa daayira daayira sëñ Tuubaa bu yaatoo yaatu bu neex yaatu bu neex nga xam ne xam liggéey finance ba pare rek dañu daal nekk suñu bopp nekk suñu bopp muy sëñ bi muy sëñ bi noonu noonu la demee ba la demee ba gis nga ko moom mii nga moom mii tey jii yaakaar naa ne ñun ñëpp bi ñu demee retraite demee retraite ca loolee ca loolee danoo gën a yaatu ci sëñ bi sëñ bi ubbil gën na ubbil gën na ubbil ca nan ko daan defee ba nga xam ne ku nu gis rek ku nu gis rek day mel ne rek tey jii la ñuy doog a judd la ñuy doog a judd kon ña ngi koy bu baax siyaar bu baax di ko di ko félicité di ko sa ci lii nga xam ne lii nga xam ne moom la nekk ci moom la nekk ci eh, eh, wetu sëñ am sa di ko liggéeyal xasaay di xasaay di di sant bu baax ndax sañ ndax sañ suñu jarbaat bi jarbaat bi luñ fi waroon a wax rek waroon a wax rek présenté na ñëpp présenté na ñëpp alaaji mbàkk yi moo waroon a ñëw moo waroon a ñëw waaye am lu ko téye am lu ko téye am lu ko téye ñu ñëwal ko ñëwal ko ñëwal ko yaat ma ñu ngi lay nuyu bu baax nuyu bu baax ndax fii ndax fi ne ndax fi ne kër sëñ Touba gii Touba gii moo njëkk ci sëñ Touba kër sëñ Touba yi kër sëñ Touba yi fii moo njëkk ci kër sëñ Touba yi kër sëñ Touba yi ay jàmbaar yu jàmbaar yu yu mag ñu ràññeeku ràññeeku nekkoon ci nekkoon ci Cap-Vert Cap-Vert waxuma ci Pinkini waaye ci cap waaye ci Cap-Vert muy alaaji sëriñ Ngom alaaji sëriñ Ngom alaaji sëriñ Fay sëriñ Fay alaaji Njaga Géy Njaga Géy Tuubaa Sàndaga Tuubaa Sàndaga loolu laay wax yaat ma ne ko yow ne ko yow ñun ñëpp war na góorgóorlu waaye yéen war ngeen a góorgóorlu bu baax ndax lu baax ndax am ngeen identité am ngeen identité alaaji góor a seek alaaji góor a seek alaaji góor a seek kenn du ko fàtte kenn du ko fàtte ñooñu rek laay jotal lim waaye jotal waaye fi mu ne bu ma ko doon lim dama fi fanaan waaye laay waaye laay nga àndoon ak ñoom nga àndoon ak ñoom ànd bu ànd bu tubaab di wax ànd bu sincère bu dëggu bu dëggu nekk seen ginnaaw nekk seen ginnaaw di jàmbaar di jàmbaar di jàmbaar nekk fii ci sa wetu place bi fii ci marché bi fii ci marché bi waaye lu xew lu ne lu xew lu ne wala ñu koy yëkkati ñu koy yëkkati nga ñëw ci kër gi nga ñëw ci kër gi ñëw ci nekk ci seen kanam nekk ci seen ginnaaw looloy sëñ bi looloy sëñ bi bin fi jógee tamit fàttewoo leen ñu ngi leen di ñaanal leen di ñaanal fee ñu nekk ci wetu sëñ bi nekk ci wetu sëñ bi ñu gën leen a ñaanal gën leen a ñaanal gën a fàttali gën a ne ñoom sax bu ñu demee ci sëñ bi moom naan lépp seen lépp mën naa seen lépp mën naa waaye ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñi nga xam ne ñoo fi desati ñoo fi desati ñaan rek ñaan ren séq ak ñoom ren séq ak ñoom kon ñu ngi nekk sa ginnaaw rek leen ñaanal bu baax a baax baax a baax di la indil tamit nuyoo indil tamit nuyoo alaaji mbakki yu alaaji mbakki yu bala moo ñëw ci moo ñëw ci moo ñëw kuréel gii kuréel gii kuréel gii ndax yaa fi nekkal sëñ Touba sëñ Touba sëñ Touba yow lu fi sëñ bi teg lu fi sëñ bi teg lu fi sëñ bi teg ni ma ko waxee woon rek nga mati ko sër nga mati ko sër lu xew ci Masaalikal Jinaan Masaalikal Jinaan ca inauguration ba inauguration ba bay sëñ bi ñëwaat sëñ bi ñëwaat di ko seet si waat di ko seet si waat yaa takk sa ndigg lii sa lii ànd ak ànd ak waa Pikine ak li ko wër yëpp li ko wër yëpp li ànd ak ñun ci liggéey ba ci liggéey ba ci liggéey ba indi fa teraanga yoo xam ne ba ngay ñëw ay camion ñëw ay camion kon kon kon alaaji Mbàkke yooyu ngi lay sant bu baax lay sant bu baax te bu la santee sëñ bi la santee sëñ bi la santee sëñ bi ndax sëñ bi nga fi toogal bi nga fi toogal ak sa mbokk yu baax yi mbokk yu baax yi di di sant kuréel gi bu baax kuréel gi bu baax ñoom ñii fi nekk ñoom ñëpp samay xarit yëpp ñoom ñëpp ñu toog fii yëpp ñu toog fii yëpp waaw sëñ Matar mi yore woon kàddu rek mënoon naa wax lépp ndax bu waxoon ndax bu waxoon ca mujj gu njëkk gi lan ànde ba nëgën ba nëgën lii ñuy wax sax daanaka sax daanaka matiwu ko woon ndax ko woon ndax euh, euh, xasaay di di di ko dagg di wax di wax sax sax warees na koo gàtt warees na koo gàtt ci bërëb yu baree baree bari baree bari waaye da dafa mënta ñàkk ndax mënta ñàkk ndax bu amee sa njaboot amee sa njaboot ñu tegu ci yoon ñu tegu ci yoon maa ngi koy wax sëñ koso mii ba mu ñëwee masaali masaali man ko yéen man ko yéen dox leen dox leen dox leen ndax yéen a ngi ci yoon yéen a ngi ci yoon boo yoree sa njaboot ñu mel nii ñu nii ñu nii seen kuréel yi seen kuréel yi seen kuréel yi ñu def ko mu yaatu lool mu yaatu lool nga xam ne nga xam ne ñoom ñii fuñ toll fuñ toll fuñ toll ñu ngi nii ngi nii ñu ngi yaru lool yaru lool yaru lool yaru lool ba pare ba pare ba pare xam lu xam lu xam ne xam ne seen morom yi kenn xamu morom yi kenn xamu morom yi kenn kon boo amee san njaboot ñu mel nii ñu mel nii nekk ci yoon nekk ci yoon def lu mel nii day baax ci dañu fekk si leen ni leen jërëjëf ni leen jërëjëf waaye xasaay di daan ko waree sunu non bu ñu tollee fii rek bu ñu tollee fii rek ñuy gàttal wax ci gàttal wax ci ndax bàyyi leen rek bàyyi leen ndax li ñuy jariñ rek sëñ bi wax nañ li ñuy jariñ rek mooy xasaay di kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax alaaji mbàkk yu ma ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax lépp lu ñuy def ci réew mi def ci réew mi di ko def ci ndakaaroo def ci ndakaaroo yéen rek la du keneen du keneen seen kuréel yi seen kuréel yi ma ngi jib fii fii la commencé woon fii fii fii fii dem na ba wër na Sénégal gépp gépp gépp génn na bitim réew ba bërki dem rek bërki dem rek bërki dem rek xasaayid Italie yi doon def daanaka bi ko ñëpp di seetaan ñëpp di seetaan daanaka danoo tàggoo seen seen seen sax seen seen sax te fii fii fii fii la fii la fii la jógee fii la ci sodo sodo xam naa ci lu baree bare bare bare bare kon góorgóorlu leen góorgóorlu yéen a ngi ci yoon lii rek la sëñ bi bëgg sëñ bi bëggul leneen sëñ bi bëggul leneen sëñ bi bëggul leneen ku leen mën a wax leneen mooy mooy liggéey leen jaamu leen yàlla jaamu leen yàlla fi sëñ bi nekkoon ñaari yoon ngeen nekk ci biir ngeen nekk ci biir nekk seenu njaboot seenu njaboot seenu njaboot seenu njaboot daanaka dañuy wax suñu njaboot rek ndax njaboot rek ndax njabootug sëñ Touba sëñ Touba kenn magu ci kenn kenn magu ci kenn kenn magu ci kenn waaye ñun am nañu sag sag boo xam ne sag boo xam ne ak tiitar boo xam ne fu leen gisee rek fu nekk rek fu nekk rek dañuy fees del dañuy fees del dañuy fees del ak kum ci mën a doon nag ak fu mu dajeeg muy ci service yeeg ci service yeeg ci ci ci jotaay yëpp jotaay bëgg dañuy bëgg ndax li nekk ci seen biir rek muy sëñ bi kese muy sëñ bi kese góorgóorlu leen ci loolu loolu rek mooy yoon leneen leneen leneen bu leen ci am soxla amu leen soxla sax amu leen dañ daan def dañ daan def dañ daan def ci entreprise yi entreprise yi foofa foofa kuréel bariw foon doole Abdou Karim a ngi nii Abdou Karim a ngi nii ñoo nekkoon sol ñoo nekkoon sol ñoo nekkoon sol muy jàmbaar muy jàmbaar xam ne foo ko gis ma ngi doon xasaay ca booba ca jamono booba ca jamono booba ca jamono booba ñu nekk ci administration administration daan ci yëngutu daan ci yëngutu waaye ñun li xam ne li xam ne suñu këri baay dañ ko doon dañ ko doon ba ñëw ci biir administration bi du soppi du soppi du soppi dun ko soppi mënuñ ko soppi mënuñ ko moom mii mu nekkoon moom mii mu nekkoon solde pénitence man ma yore man ma solde gendarmerie gendarmerie gendarmerie ñuy doxal ca loola la doxal ca loola la fu nu nekk rek def nan ko Touba finance Touba finance def nañ ko def nañ ko building def nañ ko building def nañ ko feneen def nañ ko feneen moo jur yii ay jur euh, université ba nga xam ne ba nga xam koo ci gis nii ñii ñëpp ñii ñëpp ku ci nekk yaa ngi yaa ngi toog ci ci ay mémoire yoo xam ne kenn xamu ko kenn xamu ko waaye loolu lépp waaye loolu lépp boo koy seet sëñ bi la koy seet sëñ bi la seet bi la sëñ bay mokkal fépp foofu xam ne sëñ bi nekku fa sëñ bi foofu la toog foofu la toog sëñ bi foofu kon jërëjëf kon jërëjëf dama damay ñaaxaat rek sama njaboot sama njaboot man bëgguma tànk sax bëgguma tànk sax ndax ndax ndax ndax yéen ndax yéen yéenay sunuy gàngar yéenay sunuy takkaay bu doon bu doon or ñun ñun jamaa leen am ci yéen am ci yéen am ci yéen muy tuubaa muy Touba euh, Italie Italie Italie nga xam ne bu njëkk xam ngeen ne xam ngeen ne buñ daan dem bu buñ daan dem ñu njëkk ña daan dem njëkk ña daan dem euh, dañ daan nëbbutu dañ daan def lu di def lu nekk di kii waaye tey jii waaye tey fan nga la ñuy dem ci stade yi ci stade yi defi defi kuréel ñu def ko en direct dans tout le monde entier keroog keroog Touba Italie bi ñu koy def maa ngi toog sama bureau laa toog sama bureau laa toog taal sama écran la ma fa xam la ma fa xam daanaka am na ñu nekk ci biir ci xamuñu ci biir ci xamuñu ndax daf maa intéressé daf maa intéressé te noonu ma ko doon saytu noonu la ko keneen ak keneen ak keneen keneen ak keneen a sax yaatu na sax partout dans le monde partout dans le te lii mooy dëgg lii dafa civilisé dafa te boo ko jàngee mu dem directement ci loxo ci xolu sëñ bi def ci xolu niin def ci xolu niin kon Alaaji Mbàkke yoo ngi leen di sant bu baax di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen gërëm bu baax bay laay fii danoo ñaan danoo ñaan ñun ñëpp rek ñëpp boo génnee say plan ak say kii rek ñun ñëpp ñu ñëw suq si la ñëw suq si la ba nga xam ne fii ba nga xam ne fii lii tiim ñu dañuy dañ koy defu mbaar dañ koy defu mbaar nga xam ne kuréel yi bu ñëwee rek ku ci nekk rek ku ci nekk rek kuréel yi toog ne gisoo pàcc pàcc yi ndef ñu def ko mbaar mu gën a rafet lool ndax lu rafet sëñ Tuubaa ko bopp sëñ Tuubaa ko bopp lu taaru sëñ Tuubaa ko taaru sëñ Tuubaa taaru sëñ Tuubaa day gis feet yu gis feet yu ñàkk fayda yi nga xam ne dañ koy panaal ak ku nekk ñu tag ko ca te ñun xajuñu si ñun xajuñu si ñun xajuñu si ñun xajuñu si waaye lépp ngi ci kanam lépp ngi ci kanam lépp ñëw na lépp ñëw na ñu ngi sant ñëpp ñu sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp alaaji mbakk yu ni ma la ko waxee woon rek la ko waxee woon rek daa ami tënk tënk daa ami tënk tënk waaye wax na waaye wax na moom moom ajjuma ji koso ba nga fa ñëwee koso ba fa ñëwee ba ca xaaju guddi ba ca xaaju guddi ci lii la nekk di wax ci lii la nekk di wax barke Cheikh Khady barke Cheikh Khady barke yéen a ngi ci yoon yéen a ngi ci yoon dox leen dox leen yéen a ngi ci yoon yéen a ngi ci yoon dox leen dox jërëjëf jërëjëf jërëjëf jox ko alhamdulilah alhamdulilah jëwriñ Samba Jaw Samba Jaw alhamdulilah alhamdulilah xel dal na bu baax dal na bu baax xol sedd na yaakaar yokku na yaakaar yokku na xel dal na bu baax dal na bu baax xol sedd na yaakaar yokku na yaakaar yokku na yàlla lu sëriñ bi gën a dimbali bi gën a dimbali ci dimbal lim ñu dimbali woon di di dalalaat mbooloo mi rek di wax ni rek di wax ni rek di wax ni rek sëñ Baye Lay Njaay mii laa bëgg a jox kàddu gi bu paree bu paree ma jox sëriñ Koso Sëy Koso Sëy kàddu mbooloo mi jëm ci sunu kilifa yii kilifa yii ak mboolem mbokki bi yi fi dajale di wax ni rek di wax ni rek di wax ni rek barab bii nu toog barab bii nu toog barab bii nu toog barabu barke la barabu barke la barabu barke la barke booboo tax barke booboo tax mbooleem lu ñuy def ci Pikine am yéene yi defe ko fii defe ko fii barab bay di Masaalikul Jinaan barabu barke la barabu barke la moo tax taalibe yi du ñu yéenee def du ñu yéenee def tànn barab boobee defe ko ndax fu barke ne loo fa def mu am barke fu barke ne fu barke ne loo fa def mu am loo fa def mu am barke te fu ñu xas a tudd Sëñ Tuubaa rek barke nga barke nga te doon fa jóg mukk te doon fa jóg mukk mu bëgg nag mu bëgg nag mu bëgg nag sëñ Baye Laye bala ma la jox kàddu may dagaan may dagaan may dagaan ci mbooleem ku fi ne yaakaar Cheikhul Khadim Serigne Touba Serigne Touba barab bii nu toog gis ngeen gis nii nu ko tàmbalee nu ko tàmbalee bëgg koo yaatal yaatal koo xam ne ku fi ñëw da nga xam ne kër Sëriñ Tuubaa la war a mel nii la war a mel loolu yi nag. loolu yi nag bëgg naa ñun ñi fi teew ñun ñi fi teew. kenn ku nekk am ci tàmbali am yéene yëkkati sa alal ñu def ko addee Cheikhul Khadim Serigne Touba dajale ko jox ko Serigne Baye Laye mi teg ko ci loxoom ma door koo jox kaddu gi incha allahu rabbi mu waxtaan ak mbooloo a jox ko sëy maa ngi dagaan ci barkeeg Serigne Touba ku fi nekk rek jox ma addee Serigne Touba maa ngi koy dagaan maa ngi koy dagaan ku fi nekk rek ku fi nekk rek na ma jox addee Serigne Touba nañ ko dajale nañ ko dajale nawul ma ni nawul nañ ko dajale ci ginnaaw foofu dajale ci ginnaaw foofu sëñ Abdou Karim bisimilah dañ ma ko indi sëñ Abdou Karim ku fi nekk rek maa ngi koy dagaan maa ngi koy dagaan ci barkeb sëriñ bi barkeb ngi koy dagaan maa ngi koy dagaan bismillah murid murid dajale ma àddee foofu ci mu ñëw ci ginnaaw mu ñëw na bari te barkeel na bari na bari na bari ci barkeb sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa na bari na bari na bari te barkeel nañ ma laaj àddee ji mu ñëw sëriñ bi daan wax ne kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara lu waay def boppam man amila saalin fali nafsi lu waay jëf sa bopp waay jëf sa bopp kon noo ngi dagaan addi sëriñ Tuubaa bisimilah na addi yi ñëw maa ngi jox seen Baye laay jaay kàddu gi na addi yi ñëw. atum 1446 mokk aw kon aw kon ndigal li mooy ndigal li mooy ndigal li mooy أسفل الجبل عند ذكر الحمد الحيلة تنزل الرحمة والقتل قضاء الباقي يوم يسوع أمة مقيم تنبيه سنة وعادي الله تعالى عن مديرنا fu ñu jàng xasida bi te mooy durus bi nga xam kenn ku ne yaa ngi toog fi barab bi barab wala ñu koy waxtaane mbaaxam bi dina ñu tiim daw ci sunu kaw waa su ci ba kenn ñu koy jóge mbokk yi mbéy mi ak doom yi seen bisu bokk teewlu ndigal li mooy ndigal li mooy sëriñ Baylaay daa wax ni naa jox sama mag sëriñ Yatma Géey kàddu gi Géey kàddu gi mu taxawee kàddoom kon nun népp nu bokk teewlu sëriñ Yatma Géey bismillah bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah sëñ Baye Laye Ndiaye Baye Laye Ndiaye moom de moom de moom mi nga xam ne moom la sëñ Mountakha Bassirou Mbacké mu fii sëñ Touba teg fii ci kër gi fii ci kër gi moo ma jot loo kaddu yi kaddu yi kon mi ngi leen di nuyu leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ci ak ci santam ak ci santam ak ci santam sëñ Baye Laye nee na lay nee na nëga na siy daaw siy daaw la fi waa Jokkoo Kanzul Kanzul toogoon toogoon di fi def gii teraanga di defal sëñ Touba bii teraanga bii teraanga kon bis bu mel nii bu amee tey bu amee tey njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp toog yëpp toog jëwriñ mbakk yu fay mbakk yu fay yabal fi yabal fi ñu mbata yabal ñu mbata yabal ñoo xam ni ñoo mag ñi fi nekkoon daaw ak daaw jéeg ak yeneen i at ak nekk fii di liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ kon kon bis bu rëy lay doon ci moom lay doon ci moom kaddu yi sax foofu lañ ko waroon tàmbali ci nuyu ñooñu ñooñu nuyu waa jog nuyu waa jog euh, jokkoo Kanzul yi Kanzul yi ak taalibe sëñ Tuubaa yi fi sëñ Tuubaa yi fi sëñ Baye lay nee na daaw nee na daaw lañ ko fi defoon lañ ko fi defoon lañ ko fi defoon ñuy sant bu baax a baax biñ fi suñu waroom bàyyee ñu fekkee ren ñu fekkee ren ñu fekkee ren diggante daaw ak ren nag at la at la kon kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk ba nga sante sa borom ba noppi na nga jàpp ne na nga jàpp ne yàlla na yeex yàlla na yeex yàlla na yeex waaye yaa ngi dox nga ak jéego jéego fii bu fa jëm fii bu fa ñu jëm fii bu fa na kon nee na kon nee na nañu gën a delloo suñu xel delloo suñu xel ci suñu boroom ci suñu boroom tey sant tey sant tey sant nañu gën a delloo suñu bopp delloo suñu bopp ci sañ Touba ci sañ tuubaa ci sëñ Touba mi nga xam ne mi nga xam ne mi nga xam ne daf ñoo tegloo suñu tànk fan ko war a teg fan ko war a muy tànki taalibe tànki taalibe toll nañ foo xam ne ci ay jullit yi ñu doon yi ñu doon mu leer luñu suñu borom la mu lu wax mu wax mooy kat mooy kat mooy ne li ma soxla ci yéen mooy ngeen jàmm mooy ngeen jàmm soxlawu ma seen alal seen alal soxlawu soxlawuma soxlawu ma ngeen dundal ma mënu leen ko mënu leen dama leen a indi ci àdduna indi ci àdduna ngir ngeen jaamu wa ngeen jaamu bu ñu amee sens bu ñu amee sens nekk ay murit nekk ay murit am jëmm ju mel ne sëñ Touba mel ne sëñ Touba mel ne sëñ Touba sëñ Touba sëñ Touba teg ñu ci yoon teg ñu ci yoon di ñaan bay ñaanal bay ñaanal ay jullit ay jullit di ñaan bay ñaanal ay taalibeem képp ku riir wut si ko wut si ko def ko ci ay xasidaam ay xasidaam ñu ñëw fii toog ñu ñëw fii toog ci ëttu kër sëñ Touba bi sëñ Touba bi di ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan kon dañoo war a sant bu baax a sant bu baax te nag te nag fàttaliku bu baax bu baax ne sëñ Touba mi ngi liggéey liggéeyloo mi ngi liggéeyloo sëñ Touba teg nañu fa ñu war a teg fa ñu war a teg ñun ñii nag ñun ñii nag nañu gën a nañu a gën a laxasaayu laxasaayu loolu mooy tey jii li ngeen def li ngeen def sëñ Baye Laye Ndéna mi ngi leen di sant di leen gërëm ci li ngeen fi ñëw ci li ngeen fi ñëw di leen sant nag di leen gërëm ndax gërëm ndax liggéey bii ngeen di def ngeen di def ngeen di def te sëñ Touba def leen loolu def leen loolu ngeen dikk fii ci ëttam bii ci ëttam bii nga xam ni kër sëñ Touba yëpp sëñ Touba yëpp bii de mën nañ ne mooy taaw bi mooy taaw bi bu dul taaw bi bu dul taaw ci mbag bëriwul ci mbag bëriwul ngeen ñëw fekk fi liggéey bu mel nii nga xam ne sëñ Moustapha Bassirou Mbacké yabal na fi yabal na fi sëñ Moustapha sëñ Moustapha Bassirou Bassirou sëñ Bass Abdou Khadre sëñ Bass Abdou mu ñëw teg fi xeer teg fi xeer dal nañu kat dal nañu kat fii ngeen ñëw fii ngeen ñëw fii ma ñëw fii ma ñëw te ngeen ne fi te ngeen nekkal fi sëñ Touba nekkal fi sëñ Touba bëgg naa fi juma bëgg naa fi juma bëgg naa fi ñu defal ko fi projet ko fi projet tey jii sori nañ ci lool ci projet ci projet ci projet bañ tegee xeer wi tegee xeer wi xool nañ suuf si xool suuf si def nañu plan yi def nañu plan yi gis ngeen nii ba ëtt bi mel bi ëtt bi mel lañ fi waroon a tàpp toj nañ ko toj nañ ko lañ fi waroon a waroon a def def pour mën a déplacer ñi nekkoon ci daara ci daara ñi nekkoon fii ci nga xam ne yenn kër yi la kër la foon fii kër la foon fii ñu jël loolu jël loolu but leen fu ñu leen tabaxan teg leen fa teg leen fa ëtt bi leer na ëtt bi leer na li ci des li ci des mooy liggéey mooy liggéey liggéeyal sëñ tubaa nag sëñ tubaa nag tey jii Matar Diop Matar Diop woote na ci woote na ci loolu mu woote nag mu woote nag ku ne ku ne xam nga ni da nga fee war a am war fee war a am war waa Jokkoo Kanzu Jokkoo Kanzu xam nga situation bu mel nii bu amee bu amee bu amee ñëpp ñëw ñëpp ñëw jóge fa ñu war a jóge fa ñu war a jóge toogal fii sëñ Touba fii sëñ Touba tiim ay xasidaam di ko jàng di ko jàng ñu baax ñu baax di ñu déglu di ñu déglu di ñu déglu keneen nit di ñu déglu di ñu déglu du ma ne ñu bon de waaye keneen nit di ñu déglu suñu amee liggéey bu mel nii fii nii fii na ñëpp dikk na ñëpp dikk kaddu gi kaddu gi kaddu yi liggéey la liggéey la liggéeyal kër Sëñ Touba ndax ndax am nañ fi projet am nañ fi projet bu mag a mag bu mag a mag Masaalikal Jinaan pare na pare la kër sëñ Touba sax kër sëñ Touba toujours dañu war a continuer ci liggéey ci liggéey ñooñu taxawuñu ñooñu taxawuñu ña ngay dem ña ngay dem fii it Pikine fii it Pikine fii la fi war a am la fi war a am muy muy liggéey boo xam ne dafa war liggéey bu mucc ayib mucc ayib képp kuy taalibe kuy taalibe lii occasion lii occasion ñu wax la ko ñu la ko sëñ Baye laay njaay Baye Laye Ndiaye liggéey bi ñu ko defloo bi ñu ko defloo sëñ Mountakha Bassirou Mountakha teg ko ci loxo teg ko ci loxo teg ko ci loxo damaa bëgg damaa bëgg képp kuy taalibe képp kuy nga xam ni kat kàddu sëñ Mountakha Bassirou Mountakha Bassirou moom la jottali moom la jottali liggéey bi liggéey bi liggéey bu waratu taxaw la taxaw la leeral nañu fii li ci des li ci des mooy dana am lancement bu mag a mag mag a mag boo xam ni boo xam ne danañ ci waxtaan ci waxtaan ak bokki jullit ak bokki jullit danañ ci waxtaan ak mbokki taalibe yi fii fii communiqué si communiqué si ñu def ko ñu def ko ba nga xam ni kër sëñ Touba gii nañu bëgg mu mel bëgg mu mel ku toll buntu Pikine maa nga toll feneen ak feneen na ngay tollee Mbàkke di gis sooroon yi Touba yi jumaay Touba yi nga gise ko di nga gise ko di mu jël caabi la jël caabi la teg ko ci soo loxoy sëñ mu taxal asuru yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér te ànd ak wér ñu ngi leen di ñaan ñu leen di ñaan euh, ngeen gën a ngeen gën a ànd ak Pastef Pastef ci lii ngeen nekk ci lii ngeen nekk suñ bàyyi laay nee na mi ngi sant bu baax a baax baax a baax di gërëm mag ñii ngeen fàttaliku nii ngeen mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp ngeen ñu toog nii toog nii nga xam ne ay jàmbaari sëñ Tuubaa la ñu yàgg fi di liggéey di liggéey sëñ Tuubaa ba tey nekk ca wetam fële ca àjjana fële ca àjjana ah ah amuñu seen pay amuñu seen pay yéen waa Jokkoo yéen waa Jokkoo góorgóorlu leen bu baax da ngeen xam ne nag da ngeen xam ne nag soxla nañ leen fii ci kër nañ leen fii ci kër soxla nañ leen fii ci kër fii ci kër soxla nañ leen fii ci kër gi fii ci amul keneen ku mën a liggéey fii mën a liggéey te seen loxo bokku ci loxo bokku ci bokku ci fu ngeen mënti toll fu ngeen mënti toll fu ngeen mënti toll kon nag kàddu yooyu daal laa amul li may jottali li may jottali bi ma sante bu baax a baax suñu mbokk jullit yi fi nekk yëpp suñu mbokk taalibe yi fi nekk yëpp yëpp di ci jiital nag ci jiital nag ah sëñ Moustapha Badiane moom tamit moom tamit teg ci teg ci waa kër waa kër Mazat Mazat mbakki yu fay mbakki yu fay yi dëkk fii nga xam ne nag fii nga xam ne dañoo war a gunge dañoo war a gunge képp kuy képp kuy jabootu sëñ Touba jabootu sëñ Touba di liggéeyal jabootu sëñ Touba di liggéeyal sëñ Touba kàddu yooyu daal a lu may wax amoon lu may wax ah, lu ci dëng nag lu ci mën a ci mën a li ci des nag li ci des waaw bu jubee nag alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Baye Laye Baye laay mu ngi noonu mu ngi noonu baax mën ngaa jox Cheikh Balla jox Cheikh Balla jox Cheikh Balla délégation waaw waaye nag ngeen moom ngeen moom ngeen war a wax wala ngeen bëgg a asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaar noo ngi leen di siyaar te di leen balu àq te di leen balu àq li nu bëgg a jiital ci sunuy kàddu ci sunuy kàddu fépp fu waay toog fépp toog noo ngi lay dagaan nga ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha na fi yàgg lool te wir lool te wir ba li mu naalal sëriñ Tuubaa ak la muy waaj a naal yépp mu yeggale ko mu yeggale ko te na mu ko bëggee mu ko bëggee bis bu yàlla bis bu yàlla sàkk naam gërëmal sëriñ Tuubaa lu bees doon ànd koog moom na ko ko yàlla defal na ko ko yàlla defal nuyoo bi nag nuyoo bi nag nuyoo bi nag dina yaatu ndax mbir mee ni demee mbir mee ni demee ndax bu bis bu toll nii amee toll nii amee nga xam ne fukki at ak juróom-ñeent ci ren ci ren ba ñu tàmbalee bisu xasida xasida ren jii la fukki at ak juróom-ñeent juróom-ñeent yàlla defal nu tawféex yi tawféex yi fii la doore woon fii la doore woon sëñ Samba Dia wax ba àdduna bépp tey bépp tey jot ci di ko roy jot ci di ko roy kon loolu kon loolu taw féex la joo xam ne joo xam ne ah sëñ Touba ah, moo nu ko tànn kon kon jokkoo kantul moo ca diina diina ci njiital yërim ak ñi dem àndal ñëpp boo ci tuddee sëñ Koso Sëy sëñ Koso Sëy daanaka rek daanaka rek mën nañoo jàllale nuyoo beeg cant gi ba ñu ko tàmbalee ba ren amul tànk ginnaaw tànk kanam la am. gox bu nekk ci senegal aw nit jóge na fa di dikk ci bis bi te balaa ñëw dañu koy laajte di ko déglu dañuy xëy di dikk di xëy di dikk di xëy di dikk di xëy dikk ak a fanaansi biig biig ba tey ji ñu yendu fi ñu yendu fi boo gisee lii fi nekk tey lii fi nekk tey lu mat fukkam lu mat fukkam yendu na fi dañoo dem rek dañoo dem rek ndax jëm fu sori ndax jëm fu sori waaye xasida nag waaye xasida nag Cheikh Saliou Mbacké dafa ne woon dafa ne woon ñi koy jàng sax te di ko yàq te di ko yàq ñoo gën ñi ko du jàng ñi ko du jàng kon nag ñi koy jàng te di ko sellal te di ko sellal am na ñu taw feex am na ñu taw feex ndakaaru nag ndakaaru nag jawrin ya fi nekkoon jawrin ya fi nekkoon war nañ leen a ñaanal bu baax ndax nun ndax nun danoo ñëw fekk ñu sémb mbir rek rek ñu tàbbi ci ñoom ci seen ginnaaw ci seen ginnaaw ñu li nu yónni di nu yónni di nu yónni nuy dem ba gisatuñu leen te foofee ñu ne foofee ñu ne fa la nu jëm fa la nu jëm ndax ba nga xamee ndakaaru xamee ndakaaru dañoo dem ba dañoo dem ba mu doom ay mu doom ay pàcc pàcc ku ne yor fédération ku ne damay jàngalu fii ci jumaa ji fii jumaa ji fii sëñ Moustapha Bassirou yónni moor lay moor lay moor lay takk ak der ñëw fekk ñëw dem ca laaj njëga laaj njëga na ko nan dem ca bàyyi la yu ñëw fekk ma foofu nuy baase nuy baase gaa yi baas nu leen taxaw nu leen taxaw mu ne sëñ Moustapha nee na nee na dafa bëgg jawrin yi jawrin yi ñëw fekk ko Louga ndax sëñ Abdou Lahad daf maa yónni ci moom mu ne ko jawrin yan ko jawrin yan mu ne alaaj njagaa ngi nii ak alaaj sëriñ fay ak alaaj sëriñ ngom ak sëñ Cheikh Gueye bu Tëngéej ak El Hadj Bamba Diaw yow mii nag yow mii nag yow mii nag sëriñ bi waxuma ko waaye mën nga caa waaye mën nga caa waaye Louga ngeen koy fekk ñu fekk ko lu Louga sëñ Moustapha ne dañ maa féetale ak yéen yéen waa Ndakaaru ma bëgg leen a dimbale sëñ Blaat daf ma ne wool ma leen ma bëgg leen a woo fii waxtaan ak yéen bala ngeen a toog nee na nee na dafa bëgg jenn jawrin di jiite ñépp waaye nu mu ko bëggee rek na ngeen koy defal fekki leen ko nag Tuubaa ñu dem sëñ Ablaat ne man dey Ndakaaru damaa bëggoon damaa bëggoon département bu ne nag na am ko fa ne na am yore fa sama baar yore fa sama waaye day am jawriñ joo xam ne dama ko bëgg a samp ko bëgg a samp yéen ñëpp ngeen ànd ak ñëpp ngeen ànd ak sëriñ gom nag laa bëgg a samp nag laa bëgg a samp daal dina njaga daal njaga mu ne ko mbàkke mu ne ko mu ne ko yaakaar naa la ci yaakaar naa la ci te boo ma ci dimbalee doo ko rëccu mu ne ko barkeb sëñ Tuubaa li nga ko bëgg laa ko bëgg laa nu jóge fa dégg jógee fa dégg waxtaan ba déggoo dem ne ko déggoo nañ ci benn baax li nga am na sax boo am na sax am na sax boo gàntal waaye dañ ko di ànd na déggoo na nu dem nu dem mu ne dinaa leen boole boole ak directeur rajo ba rajo ba lu ngeen bëggatee wax bëggatee wax na ko Serigne Ngom signé ngeen wax ko ngeen wax ko ci yoonu murit te du ngeen fay dara dem leen seeti directeur ba ñoom Cheikh Gile Thiam Cheikh Gile Thiam ci RTS ci RTS gi lay caam gi lay dalal nu dalal nu bég lool bég lool ne sëriñ bi wax naag man woo ma wax ma woo ma wax ma li bëgg laay def bëgg laay def boobu boobu jullikaay yi ne fii yëpp am na ci yooyu man mii dañ ma daa yebal ma wër dem ñu ñu bëgg a bind ñu bind ñu bind ñu bind ndakaaru def ko tëngéej def ko tëngéej def ko nuy daje ji nuy daje ji pàkkub sëriñ ko gom bële sëriñ gom bële muy benn baat rek benn baat rek kenn ku ne nag boo demee jottali ndigal lépp loolu moo def ànd loolu moo def ànd bi yàlla dogalee yàlla dogalee yàlla dogalee alaaj sëriñ fay nelaw fay nelaw alaaj góor a sekk ñëw ñëw fekk la ko jiitu dañu julli fii julli fii imaam bi ñu defal ko bi ñu defal ko as mbaara suñ tabax su ndaw tabax su ndaw mu ne waaw lii nag mu ne waaw lii nag ñu ne lii kat ñu ne lii fi la imaam bi imaam bi taxaw bu def xutba bi mu ne seetal leen ma koy tabax ñu tabax ko fii tabax ko fii mbaar moo xam ne mbaar moo xam ne buy taw sax ku ci dugg doo taw Cheikh Ndiaye si mu mii di entrepreneur ñu woo mu def début bi jox def début bi jox liggéey ko ba ñu di ko ubba ba ñu di ko ubba ci lii nu toj la bokk lii la bokk yal na ko sëriñ Tuubaa fay sëriñ Tuubaa fay bi muy bëgg a faatu dafa woo sëriñ mu ñëw sëriñ mi mu ñëw moom àllaaji moom àllaaji dem bin jënd ciment def ko ci pont def ko ci pont ñu ko liggéey bu ñuy def ci kër sëñ Touba nañ ko ca def nañ ko ca def te boo ndigalal jumaa ji sax amagu sax amagu moo tax bi bon bi ñëwee nag bon bi ñëwee nag may leen fondation ba ca lay dem ca lay dem waaw waaw ndax yéene ma toll noonu toll noonu yéen ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñi nga xam ne bi sëñ Moustapha waxee rek rek daanaka pourcentage yooyu ëmboon na lépp ëmboon na lépp waaye bi laji Samba waxee Samba waxee fu ñu war a yegg yegg na fa ci kàgg na fa ci kàgg na jawrin bàkki yu lanu sëñ Abdoulaye waxoon ne da ngeen am tawféex yéen waa Pikine dafa am tawféex dafa am tawféex ndax xam ngeen ne fa ñu naaloon jumaa jumaa ja lee ñu fay def ne xëyut fa xëyut fa te ba ñu defee plan bi ba mu yegg sëñ Saliou architecte bi dafa ñëw defar ko ba mu nekk teg ko ci taabal bi sëriñ bi jóg boor loxo yi wër ko xool ko ba mu yegg na ko ah. rafet na de waaye kaw gi dafa wéet dafa wéet ne ko ana xalima gi mu jox ko bindukaay mu ne ko fii de bu amoon dara fii am dara fii am dara fii am dara kon kaw gi dina wéttali sëñ Muntaxa mi ànd ak njobooti sëñ Tuubaa yëpp kër gu ne yebal nit ñu ñëw teg te ngir teer ko te waa kër sëñ Tuubaa yi dañ doon jëkkante ku ne bëgg mu doon seet ay xam nga ne sëñ Sidi Moxtaar bi naalee jumaa ji taxaw na temm bëggoon moom rek fekk julli gi waaye sëñ Muntaxa mii nag mii nag moom la ko yàlla jagleel yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg alaaji mbàkki yu alaaji mbàkki yu gis naa gis naa sëñ ko sant ko wax nga gërëmal sëñ ma toog di ko gis nag ci télé bi ñun lu nuy wut lu ngërëmal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa wax la ko am nga ngërëmal sëñ Tuubaa te yónneewut dafa jóg ba ñëw dafa jóg ba ñëw te këram waxal ko ko bopp moo tax nag moo tax nag ñu dañ koy ñaanal yàlla ñaanal yàlla mu wér mu wér te yàgg fi te gudd fan te gudd fan ndax man day ba muy xam baayam sëñ Maguette Faye sëñ Maguette Faye sëñ Maguette Faye ak aji Ndiaye Diop ma nga xam ne moo jiitoon jigéenu daayira ba loola yàgg na lool yàgg na lool waaye mag booba moom la ñu xaalal yoon lañu xaalal yoon taal boo fi gis muy tàkk ña ko taxanoon ña ko taxanoon fekki wuñ tàkk ca taal boo fi gis nag mu tàkk gis nag mu tàkk ña taxaw noonu ña taxaw lu ñuy xambe taal ba ñuy xambe taal ba muy tàkk fekku leen sëñ bi noonu na kuy wax na kuy wax neexitu dëkk fekki wa sant te nag sëriñ bay tànnal boppam te du juum damaa wax ne yaat ma ak ak maxtaaru li ngeen wax li ngeen wax nun woote woote ak jiitu lu nu am mu jiitu am mu jiitu nuy woote nag moo nu war waaye li sëriñ bi bëgg moom dina ko am nan ñaan kay maame ko ci nun waaye dina ko am waaye dina ko am sëñ Tuubaa mës ta bëgg dara ta amul kon nanu ñaan kon nanu ñaan sëriñ bi téyel nu boppam ba li mu bëgg ci lii mu amee ko ci mu amee ko ci bu ma tuddee sëñ Moussa tudd tudd El Hadj Samba Cheikh Balla Samba mi mën naa ne jiite délégation bi jiite délégation bi noo ngi leen di yóbbante ngërëm ak ak cant ak yéen ñaan ak yéen ñaan bu ngeen demee ngeen demee wax jaww ji ne ko nun de lu masa woote tanu yëg ko ñëw nanu ñëw nanu nun nag sëriñ bi lañuy wër te ginnaaw topp nañ ko ba gis tànk ba ba gis tànk ba fa dana koy topp rek waaw waaw ca la ñuy ne rek ca la ñuy ne rek déglu wunu kenn xoolu nu lu dul lu dul ku ndigal sëriñ baaw ngërëmam nu jéem ca amas dara loolu ca mën a wër sa cant gi daal dañ koo mën a junj waaye mënuñu ko wax ndax fii ku fi ñëw ñëw taaral bi nun ko bis bi nun ko ndax ndax dama koo mënu ngir yitte waaye yàlla xam ne kon ci suba laay toog fii kilifa gu fi ñëw kilifa gu fi ñëw fekk ma fi fekk ma fi booy dem ñaanal lu ba kër yëf yi sotti waaye waaye ku ñëpp soxla ñëpp soxla ñëpp bokk la nga war a nimmeeku ñëpp ñëpp am na loolu boo ko bëggee doo ko kon sëñ koso sëñ koso ngeen jottali sëñ yirim ak mbooloo mi yëpp mbooloo mi yëpp ngeen jërë ngeen jëf ngeen jëf sëñ balaa daf ne woon daf ne woon kër sëñ Touba googee mooy génn tuburankeeg taalibe yi taalibe yi bâtiment maam Cheikh rek bi nu defoon fii kilifa yu bari kilifa yu bari jóge nañu Touba ñëw dal fi dox seeni soxla ba mu yegg soxla ba mu yegg demaat demaat mën naa ci lim fii lu mat defe naa ne fanweer yoo xam ne dañ daan ñëw dal daan ñëw dal ndox bi seen i yitte bu yitte yeggee ñu dem yeggee ñu dem joxe caabi yi joxe caabi yi loolu nag mooy sababoon kër Sëñ Tuubaa nun dunu fi fanaan bu waaye nag la defal seen mooy mooy njabootam gi bu ñëwee ñu am fu ñu dugg nu di leen toppatoo ba kera ñuy dem kon nag kon nag kon nag sëriñ Touba defe naa ne ku ko jàngal alxuraan jàngal ko xasida xasida defal nga ko li bëgg defal nga ko li mu bëgg te barab bii barab bii bu ngoonu alxames wala bisub dimanche dimanche ay kuréel la fiy fees dell la fiy fees dell kenn ku ne xam ne béréb bi sa kër ndax ab taalibe nga taalibe nga te taalibe yi fi daje di dundal bi di dundal kër nun nag liy woonante ñëpp ak liggéey bi nu jublu it woonante ñëpp bàyyiwunu kenn am na ñu am wërsëg ñu am ko ca def am ñu am xam-xam am ñu am xalaat bu rafet am ñu yor seen doole ñëpp lan soxla ñëpp lañu soxla te woonal ñëpp nun kay nun kay dañuy doon koo xam ne doon koo xam ne bu ñëpp jaaroon ci sunu ginnaaw it nu boot leen du nun nag sëriñ bi nag sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi sëñ bi man li ma defal daaw dama ci yëw damaa jekk ba benn bis ñu ne ma sëriñ bi nee na nga ñëw boo fa mën a ñëw tey wala suba man ah man kay ginnaaw gi dégg naa loolu damay def sama oto paan ma daal di luyee bi oto bu kii nekk ñaar kii nekk ñaar dem dem dem ca sëriñ ba ca sëriñ ba ma waxtaan mu ne ma demal boole naa la waxtaan ak sëriñ Basiru ba mu yegg mu ma ne ko ah bu dee ndigal li sama kër gii fi nekk fii laa mu ne ma ah mu ne ma ah monsieur Kër bi dama wax ko yegg ma ah foofa romb naa ko ba tàyyi ma ne ko booba la kër gi ma fanaan ma dem fanaan fekk sama soxna tawata tawata tawat ba bi ma koo seetee xool ko ma ne kii de moom mëneesu ko bi ñu xëyee fekk sama doom yi ne fii ak sama rak am na sama doomi baay jooju doomam dana jiital ñoom ñëpp yebaloon naa leen bañ dem lii dab na may leen xëy mu ne sama rakk yóbbu hôpital mu yóbbu ko Seyxul Xadim ñu téye ko ba ngoon ma ne leen nañ ko fi téye nañ ko fi téye entré ko docteur bi ne sëñ bi ma ne ah mu ne ah, ma ne dellu si rek nekk ñoom gis nañ li bi soxna si ñëwee daal bi mu xëyee di jàll ci jàll ba daal di taal ma ne xoolal li sëñ bi def njaboot gi yëpp ñëw nañu man ma ñëw nu fekkee ba taxawu ko ba taxawu ko ah ah mooy sëñ Tuubaa mii daal lépp a mat na nun kay noo manqué waaye lépp sëriñ bi mat sëriñ bi kaw ci fa ma ki kiimaanam kiimaanam nun ñi ñëpp kenn ku ne mën nay wax ci mbirum boppam ba suba ba suba ci fu mu jaar ak yow mu jaar ak yow ba nga yéemu ci lool waaye sëñ bee mel noonu nun bëgg gi rek ak yéenay liggéeyal ko la nu am ci moom waaye moom li war ci nun daf na ko ci baref ci lu kawee sunu njor nun daal nun daal noo ngi sant ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp gërëm ñëpp ñëpp di leen xamal ne leen xamal ne leen nun damaa déggoon waajoo xam ne waajoo dafa tuddoon boppam tuddoon boppam ndongol ndongo yi ndongol ndongo yi am Cheikh Fall ma ni gar ko tuddi dàllu ndongo yi dàllu ndongo yi waaye nun daal waaye nun daal nangu nanoo doon dongoom dongo yi sunu xëyee li nu ci gën a ñor yitte joo xam ne bu yeggoon ci sëriñ bi sëriñ bi dina ci yónnee bu yëgsee ci ñun balaa dem ci sëriñ bi dina ci jéem lanu man te it baatinam sëriñ bi lañ jiital na maadi mi dana ànd dana ànd dem ci kër dem ci bureau kilifa gu mag kilifa gu mag ñu ne da ngeen am audience manekiin ñu ne ah da ngay am audience nag door kii ma ne man de dinaa ko gis te du ma am audience ñu ne ma ne bu sa ñoon taqaa ñëwoon du ngeen ko ba mu dem mu naa kay may moom moom nag laa fi dikkal moom mënta ñëw man maa ko dikkal doxal koy soxla waaye ban yeggee kilifa gi def ne kilifa gi def ne bu leen ko defal parce que nit ñi ñëpp nag du ñu mën a def noonu ngeen wax looloo yoon waaye ñëpp mënuñu ca jaar mënuñu ca jaar sëriñ bi nag sëriñ bi nag kenn ku ne lam la defal boo ca xoolee doo xool que tiim di la ëppi alal ak ëppi alal ak di la ëpp leneen ak di la ëpp leneen di la ëpp leneen lam la defal laa tam wóor la ne wóor la ne doon noo ko ci ndey doon noo ko ci bàyyi bàyyi loolu da ngaa war a xam ne lii sëriñ bi fi jaar jaar xiiwalale ko waaye du sa pare noo ngi sant ñëpp noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal ne leen xamal ne nun daal li ma wax rek daal dongool ñëpp la dongool ñëpp la kon maa ngi leen di delloo maa ngi leen di delloo jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf kàddu yi kàddu yi yëpp rafet na yëpp rafet na ziyaara bu baax baax di ziyaare di ziyaare Babacar Faye mi nga xam ne mi nga xam ne moom it ci kuréel gi la bokk yàlla dogal mu dem umra ñëw demal mbokk taalibe yëpp ñaanal ñëpp ñëpp di jaare sëñ Maxtaar sama turandoo moom it di ko ñaanal yàlla fan mu gudd am ànd ak wér am ngërëmal sëriñ bi kon mu mel ni dañuy yu dañuy jox soxna muslimatu mbàkke bintu bintu sëriñ Alaaji Baara Mbàkke Baara Mbàkke sëriñ alaaji baara ibnu cheikh mamadou fadal cheikh mamadou fadal ibnu xaadim rasul soxna muslimatu muslim lay ziyaare bu baax yow yow sa liggéey ci alxuraan xasida yi am na luñ ci xam am luñ ci xam ndax say waajur seedeel lañ la ko ñu teewee ko kon nag kon nag Mbàkke ñi ngi lay ziyaare bu baax di bëgg lool ci lool jataay bii nga ñëw jataay bii nga ñëw di la ñaanal yàlla ñaanal yàlla defal lu wér lu wér te defal la gudd fa la gudd fan barkeb sëñ bi barkeb sëñ bi kon bokk teewlu bokk teewlu dox sëñ koso kàddu sëñ koso kàddu